responsabilité bind une lettre ouverte poste ko ci Facebook am poste ko ci Instagram am soutenir ma naa ne soutenir sénégalais yi ba mu mettee lool nag ba mu mettee man xam naa li ma yóbbu kaso defe naa sénégalais yëpp xam nañ kenn dootu ko layam layam te ki ma gën a bëgg ci Sénégal Ousmane Sonko la man Ousmane Sonko moom laa gën a bëgg ci Sénégal ba mu mettee Barthélemy Diaz moo njëkk yëkkati lettre bind ko avec tous les risques parce que Macky Sall mu bëgg indi sénégalais bu ko xoxotal bëgg koo tëj kaso bëgg a yàq àddinaam bëgg koo noppiloo te mu koy def ñeneen à travers le monde Barthélemy Diaz boobu moo taxawoon ba mu mettee lool moom la ñu njëkk a gis mu taxaw man kenn mënumaa gëm loo ne waa jooju traître la wala waa jooju gëmul Sénégal wala waa jooju daa bëgg yàq Sénégal man kenn mënumaa gëm loo loolu ndax man américain yi dañ ma daan ne bu nit ne mën naa lii wax naa lii def naa lii dañuy ne show me the money Barthélemy Diaz est un patriote Barth est la personne qu'il nu faut à l'Assemblée nationale nañu bàyyi Barthélemy Diaz bàyyi ko tranquille nag parce que Bart patriote la dañu ne yeewi askan bi la wax ñun yeewi askan bi suñu objectif mooy changer loi yu bon yi nekk ci biir réew mi jële fi nit ñi baaxul ñi baax ñu bàyyi leen fi waaye Barthélemy Diaz indil Bart yóbbul Bart affaibliral Bart changer Bart attaquer Bart non non non la la seule différence est encore une fois xam leen ne Bart am na fi ay protégeur comme ni ko Ousmane Sonko amee Barth a aussi des défenseurs mois je défends Barth avec corps et âme Barth man dama koy protéger corps am man loolu laa gëm Barth man mënumaa gëm Ousmane Sonko te du gëm Barth mënumaa gëm Barth te du ma gëm Ousmane Sonko pour man ñaar ñooñu ils son une très bonne complicité ñaar ñooñu maanaam dafa mel ni nga jël xorom def ko ci togg daf koy safal dañuy safalante bàyyi leen xel ci loolu Barthélemy Diaz est un patriote man loolu laa wax ku gëmul loolu nga dem nga xool parcours am ak discours am malgré nag il a grandi dans une école politique Barth dafa am caay-caay ak banditisme yu nekk ci moom loolu kenn mënu koo dindi ci moom mais boo màggee est-ce que yow yaa laaj pour ñu yóbbu la école jàngal la non est-ce que tu as demandé d'être amené <laughs> quelque part non Mais quand il a grandi, Bart, son père, est dans l'autre camp. Lui, il est dans l'autre camp. Damane, nañu arrêté. nañu ànd ñu doon benn man loolu laa gëm nañu doon benn famille doon benn say loolu mooy mën a yóbbu Sénégal ci kanam mënuñoo bëgg Sénégal mën a bëgg lu changé Sénégal ba pare di ko disperser man je vous dis que campagne bu jotee vous ma voyez je ba campagne man amatuma lu may prouver sénégalais yi utuma poste bëgguma nekk dara je ne veux rien campagne bu jotee je bats campagne campagne bu jotee je bats campagne pour le Sénégal parce que loolu moo ma intéresse campagne bu jotee je bats campagne pour le Sénégal bu xeex jotee je sors dans le terrain je me bats defe naa loolu man amatuma pour prouver bu ñu bëggee Ousmane Sonko mais nañu dajale du dañoo bëgg a dajale mobilisons du dañoo bëgg a Sonko gagné mille vingt quatre mais faites la mobilisation il faut mobiliser les troupes wax rek dafa mobiliser ay troupes non sortons sur le terrain allons nous mobiliser allez vous inscrire et faire inscrire des personnes rentrez dans les villages rentrez dugg leen ci gox goxaani loolu la Ousmane Sonko wax. yéen ñi ne bitim réew tamit dugg leen ci eh, ci place yi ngeen wax ak nit ñi nit ñaa ngi ñëw bitim réew bis bu ne te bari nañ fa am na ñu nekk bitim réew yu dul jeex yu amul kayit yu ñu voté nañ leen mobiliser il ne faut pas diviser quand on divise on s'affaiblit l'union fait la force man xanaa xamoo am na ay ab ay activistes soi-disant activistes wala ay soi-disant Euh, euh, euh, éveil éveilleur de conscience yoo xam ne mënuma leen tolérer pour cinq minutes waaye dama leen di jéggal rek ndax li nga xam ne moom lañu bokk li nga xam ne objectif bi ñu bokk moo tax ma ne teg objectif bi donc objectif boobu laa bëgg ñun ñëpp ñu xool ko ñu ànd doon benn doon benn say bàyyi attaque personnelle yi bàyyi fen yi bàyyi wuruj beeg waraj bi bàyyi waaj a tas bi baay jéema a tas bi te ñu dox ci dëgg ndax dëgg moom la yàlla bëgg yàlla dafa bañ hypocrisie ba mu wàccee saar bu koy xalab l'hypocrite est un ennemi du peuple nanu ànd doon benn du bañal nit nag looy wax ndax je ne suis pas un dictateur comme ni ma génnee am sama xalaat di ko wax ci Sénégal noonu la keneen amee xalaatam te war koo wax ci Sénégal ni ennemi de Macky Sall ni ennemi de Mimi Touré ni ennemi de Nangam ni ennemi de Ousmane Sonko c'est pas mon ami quand même et on a des opposants mais je sais que Macky Sall n'aime pas le Sénégal ndax il a fait beaucoup d'erreurs dans ce pays te ñun ñëpp dañ ci teg bët dama ne Macky Sall a fait beaucoup d'erreurs dans ce pays ñun am nañu lu ñu fekkas focus 2024 la ñu wax focus 2024 ñi fi nekkal Macky Sall mais ñooñu Macky Sall la ñuy ñëw protéger même le mercenaire de Macky Sall qui insulte les gens matin midi soir bi mu ñëwee il a défendu Mimi Touré avec Macky Sall gisuñu ay nitu Macky Sall dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg jàppee Mimi noonu mais quant buy wax ne moom dañu bind lettre ñu ngi koy waaj a éliminer voilà suppléant xanaa Macky Sall liste suppléant bi xanaa ce plus éliminé parce que man bu fekkee am naa tuuti jàngat ci Sénégal euh, ñun suñu liste titulaire lañu la ñu suspendron mais Macky Sall liste suppléant am la ñu suspendron sama xalaat la rek nag waxuma ne loolu mooy dëgg ndax xaw ma lu bari ci luwaawu politique gu Sénégal maa ngi jàng nag maa ngi bëgg a xam yenn yi sama xalaat laay wax mais dama xalaat ne on doit être vraiment concentré focus sur quatre te loolu ñun ñëpp la war ñun ñëpp ñoo ci am responsabilité ñun ñëpp nag ñun ñëpp ñoo ci am responsabilité xam nga àdduna bi euh, kenn ku nekk ak ki nga bëgg a déglu ak li nga gëm ci li muy wax ak li nga gëmul ci li muy wax waaye Kanta toujours mana mana moo ñu rey ci réseau bi man maa am xam-xam man maa fi waxoon lii ma rajaxe woon fii maa tojoon fii maa defoon lii man may kii may kuukoy man maay nangam maay lii c'est pas ça le combat c'est pas ça le combat si Mimi Touré n'existe plus c'est une ennemie moins waxuma dee nag waxuma kenn rey ko ndax wax dëgg yàlla ñun duñu ay reykatu nit bëgguñu ku rey benn doomu aadama bu nekk citoyen sénégalais bëgguñu ku dee waaye man pour man Mimi est en train de faire la manipulation des masses comme elle le faisait toujours di ñu manipuler di dox ci suñu xel yi bu leen fàtte ne cette dame là c'est une bonne communicateur premier ministre la woon fii nekk fi yor fi ay ministère <laughs> jiite listu bennoo tas yaakaar dama ne nañu arrêté nanu moytu nanu moytu mimiture Touré ngi yëngal senegal di wax ay waxam di law ngeen jàpp caaxaan bi topp ci Mimi ay waxam di law Mimi boo leen ko doolelee dafa mel ni nga jël sa sa ninki nanka walla sa sa sa sa dëmm nga nga dooleel ko ci biir dëkk bi dana lekk ñëpp bàyyi faites attention new ma ñu neutraliser ko wala rey ko waaye dama ne Mimi suñu problème on a un problème ñun am nu problème pas Mimi Touré c'est pas notre problème Mimi Touré na dellu fële mu jóge ñu lijjanti seeni problème walla bu fekkee dafa bëgg a retraité politique ngeen tabaxal ko këru retraite fële ci àll ba mu dem retraite waaye Mimi Touré naa fekk la Mimi Touré du jullit man man astaghfirullahi tuubi ilayka ndax wax dëgg yàlla nag euh, am na loo xam ne euh, euh, mënuma ko wax ndax jullit ndax jullit la wala du jullit loolu yàllaa ko xam waaye xam naa ne du doxal doxalinu jullit hypocrite la ndax mi ngi doxal ay doxalinu hypocrite Mimi Touré mii dem leen ngeen toppi ay archive am dem leen ngeen toppi ay doxalinam lenn rek la mer moom ak Macky Sall la ñoo ànd pour moom ndax sénégalais yi te moom kenn falu ko assemblée nationale loolu rek la Mimi mer loolu suñu yoon ñun dañu waroon séddoo wala joxuma sama wàll ci alalu sàcc bi léegi ñun dañuy ñëw protéger Mimi pour mu jot alalam ci ci ci loo xam ne moomu ko sunu yoon nekkul ci Mimi man dama suñu yoon nekkul ci Mimi man Mimi Touré intéressé wu ma li muy def intéressé wu ma li muy wax intéressé wu ma ñun vingt vingt quatre la ñu wax Mimi Touré man gëmuma ko musuma koo gëm Mimi Touré man Ousmane Tounkara gëmuma ko musuma koo gëm je respecte rien de ce qu'elle fait Mimi Touré man gëmuma ko te wóoluwuma ko dama ne ngeen def ndànk bàyyi leen sentiment yi parfois terewuma nag nit nga am sa xalaatu bopp mais faisons doucement quand il s'agit de Mimi Touré Parce que Mimi Touré n'est pas un ami wala une amie de notre République. Mimi Touré warkat la Mimi Touré du waxkatu dëgg Mimi Touré warkat la Mimi Touré dafay fen Mimi Touré dafay tappale Mimi Touré moo fi àndoon ak Macky Mimi Touré ak Macky Sall réeroo wuñu dafa am ko naqari en ce moment elle se victimise dañ may waaja a rey dañ may waaj a nangam mais attends comment se fait-il que ñaawte fii doon am ci Sénégal yëpp ñun biñ koy jooy comment se fait-il que Mimi Touré musu musu ca yee yàbbi si Mimi Touré bu defee tuuti menace nii bu buñ ko woowoon léegi am lu ñu dugal ci poche bi am lu ñu ko jox rek mu ne pat noppi kenn dootu ko déggati les Sénégalais il faut faire attention ñun suñu yoon nekkul ci Mimi ak ay problème am faisons attention nanu moytu on est très sentimental parfois et ça nous blesse yenn saay danoo sentimental te loolu daf ñuy gaañ Mimi Touré bandi la Mimi Touré gëmul yàlla ndax ku gëm yàlla du doxal doxalinu Mimi Touré kañ la ñu dégg Mimi Touré dañ ko joxul présidence de l'Assemblée nationale mais attendez Mimi piège la de Mimi bàyyi leen ak moom di di di jooy mais arrêtez Mimi ku ko rey ñu xeex bëgguñu kenn ku ko rey ndax moom moo bind dañ may rey ak dañuy dagg sama bopp ak dañ may nangam ah kon léegi Mimi nu confirme que Macky Sall day rey nit ah Mimi foo nekkoon démb donc Mimi nu confirme que Macky Sall fait du népotisme Mimi Mansour Faye lu mu bokk ak Macky Adama Faye lu mu bokk ak Macky Mimi Alioune Sall lu mu bokk ak Macky mais tu nous emmerdes ñun suñu yoon nekku ci suñu yoon nekku ci lu la neex nga dem lijjante ko fële bu dee dañuy dagg sa bopp nan dagg sa bopp bu dee dañ la ah, ah, en tout cas bu boobaa incha allah on demandera que la justice soit faite pour toi mais Mimi yow saaboo amee problème sénégalais yi ñëw xeexal la ba nga amaat doole nga daw non mais attends Mimi Touré bis bu duggee ci Pastef non Pastef moom xam naa Ousmane Sonko moom ku am jom la loolu defe naa du ma fi toog di ko layam-layame duma duma du ma koo dicté nag comme man xam ngeen ma dama ko gëm donc xam naa ne lépp lu muy travailler c'est de bonne stratégie mais xam naa ne Ousmane Sonko moom ànd na ak sagoom voilà Ousmane Sonko a di et a bien di bu ñu kenn divertir concentrons-nous sur 2024 concentrons-nous sur 2024 loolu mooy débat bi mais quant Mimi Touré moo fi ñëw di jooy di xalab Macky Sall eh, eh, eh. ah waay golo du xas baabun ñaawaay waay mais arrêté baabun mooy xas golo mu ne ko da ngaa ñaaw ah non non non non non moi je moi je n'y crois pas man Mimi Touré yi muy def nii yëpp film lay tourné parce que ñoom noonu la ñuy doxee da ngay gis ku génn xalab euh, euh, maanaam euh, bu xalabee ba pare mu menacé bu menacé ba pare ne Macky maa fi ne maa fi defoon lii maa ko waxaloon lii maa ko defaloon fii suñu yoon ci on s'en fout non non non non non non bu ko Macky rey voilà on est des sénégalais ñun xamuñu ay rey nit voilà gis nañu ne ay nit dee nañu ci biir kaso ba y a 21 morts y a 22 morts on voit tout ça ñun bugguñu benn sénégalais nag ñu rey ko bugguñu benn sénégalais tous ces sénégalais qui sont tués wallahi billahi tallahi lazim ku leen rey dinañ la jàpp responsable bu dee maki Sall na xam ne moom du génn Sénégal te il n'a pas rendu compte à ses moom ak doomu xaraamam boobu waaju ñàkk jom boobu général am Moussa Fall moom ak Moussa Fall reykatu nit bi ak Antoine Diome wallahi lazim xam leen ne le Sénégal ce Sénégal que Sénégal bii nga xam ne ci la ñuy dund wallahi vous allez payer de ces crimes comme ni ma leen ko waxee nag dañuy nen pat di leen seetaan di leen déglu parce que fi mu ne nii ñu nguur gi ñoo changé dara dégg ngeen seen saagakat bi seen micro seen seen seen kii bi wax na leen ko euh, nu mu tuddati seen mercenaire bi il vous a bien averti ndeysaan nee na li ngeen yor seen kër yeeg seen kabaan yi yëpp danañ ko nangu wax na leen rek xam nga moom mercenaire la mercenaire bu dof la xam nga dof dëmm la day jëfar dina wax ba wax ba lamb taatam du xam ne moom taatam la lamb mais il faut que ñu concentré wu si li nga xam ne moom mooy suñu débat ñun Mimi tourer n'est pas une actualité pour nous c'est une traitre qui a été trahie elle pleure elle se renverse muy tëbëk a dal on s'en fout loolu mooy dëgg Mimi Touré du débat pour ñun il faut doomu aadama yi xam loolu les sénégalais réveillons nu il ne faut pas qu'on se ñun loolu mooy dëgg ñun yeewi askan wi lañu wax yeewi askan wi lañu wax pour ñu yeewi askan Sénégal am ay député yu mel ni jiimari Marius Sagna ay gaynde ci biir assemblée nationale ñu ñuy xeexal di ñu cookil loolu la ñu gëm mais gëmuñu Mimi nous on ne croit pas en Mimi Mimi mooy kan balaa maa dee rek wala jóge fële dañ may rey j'ai appris lettre ouverte nangam nangam non non non amène les preuves donne-nous les preuves xam nga lépp tu étais premier ministre tu étais tout ça donne-nous des preuves ñu dégg ko ñun gëmunu dara li ñu gëm rek mooy da ngay def da ngay pousse di dafa ay harcèlement ñun xam nañu liste rouge Macky Sall te yow bokkoo ci la liste de Macky Sall pour éliminer les opposants toi tu n'en fais pas partir xam naa ne nag neexoowu leen fi mu ne da ngeen di xuloo wala da ngaa fay li sama xarit bi di wax Pape ale mu ne mii mi dafa fay temps yi mu ne dafa fay xëy na dafa fay nañ ko moytu bàyyi leen sentimental les Sénégalais arrêtez d'être sentimental Mimi Touré n'est pas notre ami Mimi du suñu xarit Mimi taxuñu ko jóg Mimi dafa bëgg a xëccoo nii tuuti pour woon Macky Sall dooleem Macky tegagul sax gouvernement am bu bees bi Mimi ngi wuru jóg a waraj pour lan dañoo xuloo fi mu ne ñun lañ ci génn nañu taxaw ci tuuti yi seetaan leen man duma fi man man bokkuma ci ñii nga xam ne dama fiy toog di supporter Mimi Touré je je ne le ferai je ne le ferai jamais duma ko def parce que gëmuma ko parce que quand on a essayé de le faire elle nous a toujours trahi Mimi bii du première fois am Mimi ça c'est pas sa première fois lii du première fois Mimi di fay donc ñun bu ñu jéemee sauver Mimi une fois mu trahir ñu ñu jéem ko sauver deux fois mu trahiraat ñu ñu jëm ko sauvé waat trois fois mu trahiraat ñu mais arrête Mimi elle fait partie du complot de Mimi moo fi taxaw barki démb mu ne na Ousmane Sonko dem seetal boppam ci ay accusations Adji Sarr te xam ne c'est des accusations fallacieuses te mu xam ne quatorze morts moo ci am <coughs> bakkan yi rott bakkanu Mimi daf leen ngeen bakkan yi rott yii rott bakkanu Mimi daf leen ngeen mais arrêtons arrêtons nañu bàyyi par parloo parfois par parloo daf ñuy dugal ci ay détails yu ñàkk xorom indi ñu ay problème nañu bàyyi xel ne Mimi du sunu xarit Mimi du xaritu Sénégal il faut ngeen xam loolu Mimi ne pas l'ami du peuple faisons beaucoup attention mën fee taaw di wax ay waxu Mimi Touré suba guddi ngoon non mane mënuñu fee taxaw di wax waxu miimi suba guddi ngoon jamais Mouna Sagna Ousmane donnons lui une bénéfice de doute peut-être qu'elle a la vérité la vérité dans sa mort waaw d'accord ma ne incha allahu rabbi ngeen jéggal sama kàddu bu ñu daggee bopp Mimi ñu boole ko ci vingt vingt victimes yooyu mu nekk vingt unième incha allah ñu atte si ñi ko rey waaw mais ñun amuñu amuñu temps pour dem protéger Mimi wax dëgg yàlla ñun am na nañu lu ñu doy añ ak reer ak ndékki na dundu nag cent te bu ko kenn laal bu kenn laal Mimi Mimi kenn waru koo laal déedéet ñun Sénégal même bu ñu jubawul ak ñoom bëgguñu kenn rey ko parce que ñun ay dëkku jullit lañu bugguñu kenn rey Mimi waaye bu ñu daggee bopp bi incha allahu bi ñu boole ko suñu 21 victimes yooyu ñu daal di leen atte du noonu parce que gënul ñi dee Mimi moo gën François Mancabou wala Mimi moo gën ñeneen ñi fa dee moo gën suñu jeune patriotes yi ñu jël seen bakkan Mimi màgget bu xobidaas la Mimi moo gën xale boobu am 14 ans bi ñu jël bal réel dóor ko ci bopp Parcelles Assainies ci bëccëgu ndar kàmm Mimi Touré moo ko gën Mimi Touré moo gën sénégalais yi ñu fetal nii yëpp ah ñi ñu rey nii yëpp tous les sénégalais la là Mimi Touré moo leen gën mais arrêtons de faire du n'importe quoi ou de dire du n'importe quoi nañu gëm yàlla Mimi na gëm yàlla dafa bëggoon nax sénégalais yi bi mu bëggee nax sénégalais yi ça pas marché pour elle loolu mooy dëgg. On s'en fou yaa y a Mariama Sagna, la maman de quelqu'un, des enfants. Mariama Sagna ay doom yu ndaw la bàyyi ba léegi ñu ngi fayal ay doomam ñu jàngi école pourquoi Mimi ne s'est jamais battue pour qu'elle pour qu'elle reçoive justice pourquoi Mimi ne s'est jamais battue pour ses vingt et un victimes man man man logique lay doxee ci l'islam œil pour œil dent pour dent Mimi fait partie des tueurs Mimi fait partie des manipulateurs Mimi fait partie des des des délinquants Titi maa ngi lay nuyu bu baax gaa yi maa ngi leen di ziare il faut ñu xam lu luy luy vraiment débat Mimi dem na ñëw na du débat parce que Mimi dem ak ñëw la xam Mimi dóorkat la Mimi dóorkat la c'est tout en tout cas li am importance Yewwi Askan Wi lañu fas yéenewul mu tas ñi nekk ci seeni ay pexe yu bon bëgg koo tas di wuruj di waraj te ngeen mën a wax jël leen seeni ay micro ngeen wax yeewi askan bi buñ ko tas arrêtons d'attaquer les opposants principaux Barthélemy Diaz suñ ko fragiliser xam nañu li ciy tegu xam nañu li pourquoi nous on veut fragiliser pourquoi le Sénégal est le de des Sénégalais Ousmane Sonko ci la bokk Barthélemy Diaz ci la bokk Karim Wade ci la bokk Khalifa sàll ci la bokk tous ces Sénégalais qui sont la ils font partie du Sénégal man comme ni ma leen ko waxee Ousmane Sonko rek laa bëgg gëmeewu ma ko waaye ba mu mettee trop ba mu lëndëmee trop Barthélemy Diaz était devant le rang kenn jiituwu ko ci xam nga dama lay wax ndeysan nit mënul lu dul am santiment damay toog ci sama biir kër sama doom yu ndaw yi xam nañu kuy Barthélemy Dias parce que ba seen baay waree ñàkk lii ruu bii ba ko Macky Sall la bëggee génn ci moom Barthélemy Dias en tant que homme politique ñoom ñëpp def nañ seen wareef nag muy Sonko di Barthélemy Dias di ñëpp macha allah mais Barthélemy Dias billahi wallahi tallahi moo jël ay responsabilités moo gën a dooleel moo gënoon dooleel suñu xeex bi parce que moom keroog bi mu bindee lettre am boobu lettre boobu li mu indi ci awareness ci ci xeex bi kenn mësu koo gis et je les comprends je comprends tout le monde Barthélemy Diaz du moom laa doon xeexal man Sénégal laa doon xeexal le don de soi pour la patrie balaa blâmewu ma ci kenn mais ba mu mettee lool dafa génn mu bind lettre mu jël ay responsabilités poste ko nag tas ko adduna bi gis ko man kooku kenn mënu maa ne naa fekk la kenn mënu maa ne kooku tojkatu Sénégal déedéet man gawuma loolu et si je vous euh, euh, ñi ma xam man Sonko laa jege moi je suis pas Sonko laa bëgg je ne suis pas Barthélemy Diaz maanaam je ne suis pas de du parti de xawma Euh, Khalifa Sall wala non non non non j'ai jamais voté pour Barthélémy Dias c'est mon meilleur maire maire bi ma gën a bëgg ci Sénégal bokk na ci mais dama ne Bart bàyyi leen di ko attaqué on a eu des problèmes au niveau de l'Assemblée nationale Ahmed Aïdara a déposé sa candidature il ne devait pas déposer sa candidature ñu xam ci nag lu bare bare bare bare mais dañu ne askan wi la ñu bëgg a yeewi askanu Sénégal la ñu bëgg a yeewi donc il va falloir des sacrifices il va falloir que Ousmane se sacrifie il va falloir que Bart se sacrifie il va falloir que Sonko sa sacrifie il va falloir que keneen ak keneen ak keneen ñu sacrifié man nag mënuma par parloo te munuma xeex ak samay frères ak samay sœurs parce que on ne nombreux dans ces réseaux ku nekk ngi wax jëmale fële ku nekk ngi wax de sa manière on n'est pas quand même des dictateurs dama fee xam ngeen lu américain di ne fee ñu ne xeexu euh, euh, ponkal mu am quarante ans ak xale bu am 2 ans mënta fee maanaam tolloowul moo tax ngeen di gis lu bari duma ma bëgg xeex ak nit parce que euh, yàlla moom xëy na daf ko jaarale ci yenn situation waaye ku ñu xeexal rek la plupart des temps dañ lay yàq donc bàyyi leen loolu xel ñi ñuy jéem a attaqué di jéem a def ay ay sànni xorom yu ndaw jéem leen moytu seen bopp wala gaar wàlle moytu leen seen bopp parce que boo leen ñu tooñee ba ñu mer ba ñu génn fi ba ñu dal seen kaw da ngeen di yàqu te ñun bëgguñoo yàq kenn parce que bëgguñoo affaiblir combat bi dañ ko bëgg a déglu dëggal dañ ko bëgg a dooleeloo combat bi dañ ko bëgg a dooleel dañu bëgg a dooleel combat bi voilà dañu bëgg a dooleel bi bii ñu nekk c'est un combat citoyen c'est le don de soi pour la patrie nañ ko dooleel man ñëwuma fi pour wàññi doole kii yokk doole kii yokk doole kele wàññi doole kele non non non c'est Sonko la personne pour laquelle je vote moom rek laa gëm ci politique mais cela ne veut pas dire que damay rey ñëpp ñu nekk ci yoon bi non non non non arrêtez laissez Bart tranquille Bart nitu dëgg la soo <laughs> nekkul nitu dëgg mënoo def ak Bart Bart sonko sonko sonko ñun ñoo leen fi jiitu ah di sonko sonko mais on n'est pas des fanatiques man fii laa woon ba mu lëndëmee je suis là je lève la main prip kan laa campagne bi campagne amee sama dëkk j'étais là ah. j'ai bossé pour Yewwi Askan Wi pour maay mon honorable député Aïcha Touré kooku laa bossel ndeysaan yàlla def mu dem assemblée nationale ñu def ko aussi questeur quoi qu'on puisse dire, on a bossé pour ce qu'on Mais cela ne veut pas dire qu'on va, euh, maanaam, fragiliser cette coalition wala sax amaana ñu tas coalition bi déedéet. coalition bi nag am na ay saay-saay ci biir loolu dañ koy nangu maanaam foo mën a dem ci àdduna bi am na ay saay-saay sama kër sax am na saay-saay sama kër am na saay-saay pourtant gis ngeen këru président de la république I mean kër Macky kër Macky am na ku baax ñëpp baaxuñu nag <laughs> ah mais am na ku baax kër Macky am na ku baax gis nga kër président Ousmane Sonko l'homme le plus sain presque de de des hommes politiques du Sénégal am na ku bon biir këram loolu mooy dëgg mais bu ñu tasee Yewwi Askan Wi on fragilise l'opposition et c'est fini ça je vous di ñu bari ñu ngi xeex di jooy waaw dafa am ñuy wor d'accord mais warkat am na fu ne ci àdduna bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci entourage am amoon na ay warkat yuy ñëw di waxi fii dem waxi fële ñëw waxi fële mais dafa soxla on a besoin de tout le monde soxla nañ leen xam nañu li xew nag on connaît ce qui se on n'est pas des fous <laughs> li Barth daan wax waxam waxam bi gën a siiw mu ne koo jàppee dof mi ngi wut garab bu mu la faje xam nañu lu bari mais lépp daasu ko wax ndax bu ñu waxee mu ne <laughs> Titi Camara mu ne gën a kër Macky nag mu ne kër grand doo grand kër Macky nag ñëpp boolandoo <laughs> da da gis nga Titi kër goo dem ci àdduna bi am na ku baax kër goo dem am na ku bon kër goo dem am na ku bizarre am na ku baax kër goo dem nag ci àdduna bi wallahi lazim am na parce que xam nga bon mooy complémenté baax parce que bu bon amul doo xam luy baax bu baax amul doo xam luy bon pour xam bon il faut nga xam lu baax pour xam lu baax il faut nga xam lu bon boo xamee ñaari nag tu peux maintenant faire la différence léegi on est dans un combat de principe on est dans un combat où tous les sénégalais ont besoin d'un changement gis nga Sénégal dafa soxla changement bu radical te ci gën a gaaw nag te mu gën a gaaw dafa soxla changement bu radical ëpp ma xam-xam ci Sénégal peut-être ci activiste yi sax maa ci gën a doyee di amul problème mais au moins je suis constant ñun dañu ne. ay éveilleurs de conscience lañu on n'est pas des saints et on n'est pas les les plus grands connaisseurs du monde waaye dañuy yeete ay lanceurs d'alerte on lance les alertes on éveille les consciences nañu respecter doomu aadama yi te bu ñu leen jàppee dof te ñu wàññi fen yi parce que yenn saa yi man damay déglu réseaux sociaux ay éveilleurs de conscience yuy wax bu ma leen dégloo man damay yaakaar ne ñoom ci Mauritanie la ñuy wax yéen ñi ci fii ne ci réseau yi yéen ñëpp ku ne am na ci parti politique boo bokkoon am na de ñi ñëw ci Sonko yëpp am na fu ñu nekkoon wala ñu nekk ci ci feneen yëpp am na fu ñu nekkoon dem foofu donc nañu def ndànk nañu def ndànk nañu bàyyi xam nga par parloo bi jaay doole bi yenn saa yi dangay wax ñu ne la waaw ñu wax dëgg bi nañ ko xar ci dëgg dëgg bi yëpp boo ko waxoon ku bëgg wax dëgg yëpp wax ñu dëgg sa biir kër man xam naa ay nit yoo xam ne ñu ngi laayam laayame ñu ne leen sa baay jur wala sa baay jur la da ngaa bëgg wax dëgg rek waxal dëgg bi sa biir kër dëgg yëpp daa suñu ko wax am na dëgg yoo xam ne vraiment di ko wax sax mais doo ko do doo naka laa ko mën a waxee te du ma juum dëgg rek te yàlla tax la ñuy wax mais am na dëgg yoo xam ne euh, est-ce que dëgg la maanaam tey nit mën naa ñëw manipuler la yow wax la ay wax yi dof yow nga génn nga wax waxi dof yooyu parce que nit ki moo la ko wax est-ce que nit ki lim la wax dëgg la donc il faut faire attention man je suis un grand analyste man boo ñëwee wax ma say waxu dof bëgg maa waxloo ay caaxaan dama lay déglu ba nga pare ma ne ah nga ne ma waaw ma ne la noppil wax la de noppil bu ma la nee nga noppi dafa baax ci yow nga noppi Parce que parfois, on fait des erreurs et on ne se rend pas compte. Parfois, de nuit manipuler. On est facilement manipulé. du li la wax yëpp ci àdduna mooy dëgg du lépp lu xeeñ neex moo neex déedéet dama ne yenn saay nañuy bàyyi xel ci information yi ñuy jot parce que ñu naa ay nit ñoo ñuy informé de ku nekk nag nee na source am moo gën ci àdduna bi man man naa ñëw wax léegi ma ne sama source moo gën ci àdduna bi kayis foofu ñëw mu ne sama source gën man maay waxkatu dëgg bi axeneton jóge fële mu ne non non kenn musul wax lu dëgg lu mel ni man jiji jóge fële mu ne man rek maay wax dëgg ci àdduna bi keneen joge fële mu ne man rek maay wax dëgg waaye bu leen fàtte ne yenn saay même personne bi moo ñuy <laughs> informé ñun ñëpp mën na ñëw wax la yow dëgg mu fen kii mu fen kële mu fen pour lan pour réeral ñu bàyyi leen loolu xel nit mën nañoo manipuler c'est ce qu'on appelle la manipulation des masses c'est une masse critique on na des gens qui viennent aussi pour nous manipuler da ngay jékki-jékki rek ñu ne la demb kële kër Macky Sall la reere après la même personne ñu ne la kër Marème fay Sall la reere mais attends kër makki Sall la reere palais wala dafa dem fële fekki Marème Faye Sall reer wala dafa reere euh, euh, kër Pape ale Niang même ni ki naka lay reeree kër Pape Alé mu reeree kër makki sal mu reeree kër Marème Faye sal walla nga jékki-jékki waa APR ñoom ci seen bopp ci seen biir ñu ñuy divertir waa APR ñun am nañu waa APR ci biir Yewwi Askan Wi dañuy ñëw divertir la wax loola waxi dof ne la eh nga ne lu xew ñu ne la Bougane Gueye Dany léegi la gisee makki Macky yow nga jël kàddu boobu nga daw ak moom wala ñu ne la maali Gakou mi ngi noonu moog Macky Sall ñoo ànd ñoo nekk ci oto bu ñuul bii yow oto bi gisoo li ci biir ndax dafa am ay vitre teintée waaye ñu ne la maali Gakou moo nekk ci biir yow nga daw gàddu loolu yóbbu nanu moytu parfois on peut faire des erreurs ah ne faites pas amalgame xam nga new ma euh, soxlawuñu euh, Eva Eva Fall mu ne oui on a besoin de ce changement radical c'est pourquoi on ne doit on doit éviter d'être trop sentimental le cas Mimi moom faisons très attention merci beaucoup Eva e on n'est pas sentimental xam nga man man ki ma xam man euh, damay waxtaan ak sama benn xarit mu ne ma Ousmane dama gis mbaax ci yow ma ne ko parce que damaa yàgg bon <laughs> waxi mag laa leen wax mu ne ma Ousmane je vois que tu es très gentil ma ne ko parce que j'ai été lâche pour longtemps ma ne ko moo tax ma ma baax dama bëgg a dem àjjana xam nga nit nee nañu dangay ngay sa ndaw ba toll fenn ci sa mag nga soppeeku nga bëgg dem àjjana damaa bëgg dem àjjana guddi yi ñu toll dama bëgg bu ma yàlla génnee ci àdduna bii ma dem jannatul firdaws loolu laa bëgg ñaanal leen ma ko loolu rek laa bëgg kenn ku nekk ñaanal ñaanal leen ma gudd fan ak wér bu dee am na waaye bu dee yàlla dafa gàttal samay fanit ñaanal leen ma ma dem àjjana loolu laay ñaan ñëpp waa ji dama ko ne ma ne ko man damaa yàgg saay-saay moo tax ma baax mais dinaa la wax dara amul kenn ku nekk ci réseaux sociaux yi ku ma gën a sadik amul kenn ku fi nekk ku ma gën a sadik xam nga sadik xam nga da ngay dégg ay nit yuy wër ci réseau bi ay gat nangam ay gat nangam américain bi daan na ne mu ne the man the real man who has a gun never talks about it maanaam ku yor fetal du la masane dama yor fetal te kii reyee du la masane dama lay rey am a gangster man yenn wax reewande yi ngeen di dégg yenn nit ñi di ko wax dañ koy wax à cent mille kilomètres de distance kenn ci ñoom ñemewul taxaw ci sama kanam di wax yenn waxi dof yi ñi ma xam-xam nañu loolu man dama sadik aw <laughs> yenn yi duñ ko wax comme li ma la wax ñun duñu menacer kenn dañuy taxaw fi ñu taxaw ñu bëgg yàlla dimbali ñu ñu filtre information yi nañu wàññi fen yi lu bari li ñuy wax fen la da ngay gis nit kuy fen di fen di fen ba dellu gëm ay fenam C'est de la manipulation. Quelle est la différence entre nous et Macky Sall lan mooy suñu différence ak ñun ak Macky Sall wax leen ma luy suñu différence ñun et Macky Sall qu'est-ce qui est notre différence lan mooy suñu différence ñun ak Macky Sall c'est quoi notre différence ñun ñu ne Macky Sall ak ñi mu àndal dañuy manipuler après ñun aussi ñu manipuler mais c'est pas sérieux Si on di que Macky manipule, mais nous, on ne doit pas manipuler. Non, non, non. Nous, on ne doit pas manipuler les masses. Nous, nous devons dire les gens te yàlla dëgg la bëgg Dieu aime la vérité donc disons la vérité aux sénégalais jarul ñuy manipuler sénégalais dédét jarul nga jël nit di ko dugal ay fen di ko sol ay fen ci boppam te yow ci sa bopp xam nga ne da ngay fen ti sais que tu mens mais yaa ngi jël fen yooyu di ko bëgg sol ci bopp nit ki ba mu gëm ko yaa a quatre pour cent de ces jeunes qui nous dit qu'il croit au président Ousmane Sonko donc ma ne leen yéen ak Ousmane Sonko seeni valeur dafa wute ndax Ousmane Sonko du saaga kilifa diine ou aada du saaga kenn du xas kenn Ousmane Sonko day wax dëgg te yàlla rek tax Ousmane Sonko. dëgg lay wax te yàlla rek tax te bu paree ci dëgg boobu pare la musoo koo dégg mu digal kenn lu bon man yenn saay bu ma toogee ma dégg nit ñu ne Ousmane Sonko moo digal nit lii Ousmane Sonko moo digal nit la ne non kan moo mës a dégg Ousmane Sonko bu saaga indil leen ma vidéo bi iPhone 14 moo génn bees ma may la benn billahi wallahi tallahi lazim lu ma wax nag duma ko dindi commandé naa ci nag yu bari na ma nit indil vidéo bu Ousmane Sonko saaga wala yëkkati ay kaddu yu ñaaw jëmale ko ci kilifa diine wala aada nga indi ko ma may la iPhone 14 bu bees takk Ousmane Sonko xamul sax nu ñuy defee ñaawteef du wax lu ñaaw du def lu ñaaw foo ko fekk mi ngi moo tax ñu tuddee ko ku sell ki il est exemplaire billaay wallaay tallaay bëgguma ko ndax taaram bëgguma ko ndax xaalisam ndax amu ko bëgguma ko ndax dara li ma ko bëggee mante yàlla rek tax mooy respect bu mu am ci doomu aadama donc nañ ko respecté waay nañu ko respecté nañu ne rek euh, ñun dañu nekk ci benn république boo xam ne dañu am ay nit yoo xam ne ñu bari ay fenkat lañu ñu bari ay defkatu ñaawteef lañu ñu bari di defkatu lu baax aussi Sénégal yëpp bonul Sénégal am na ñu baax ba léegi am na ñu fa baax ñu sell ñu yàlla bëgg ñoo xam ne incha allahu rabbi bu ñu yàlla dimbalee ñu dimbali ñu ànd ñun ñëpp ñu soppendoo Sénégal mais kanta ñu mën a toog fii tey euh, di wax ay waxu Mimi Touré moom damay ñaan sénégalais yi ngir yàlla ak yonent bi rek ñu jéggale loolu te jëllale ko te teg ko fele voilà nañu bàyyi waxu Mimi Touré Mimi Touré du exemple Mimi Touré bëggul Sénégal Mimi Touré gëmul senegal yéen ak may dégg Mimi Touré du Sénégal bëggul Sénégal gëmul Sénégal naafeq la bi gën a mag ci naafeq yi parce que man déjà li ma gën a nawul ci nit mooy ñàkk constance xam nga man tey je suis constant Ousmane Sonko dem na fi palais dajeeg Macky Sall ba léegi maa ngi ànd ak moom Ousmane Sonko euh, vraiment def na ay erreur tuuti parce que nit du parfait ba léegi maa ngi ànd ak moom Ousmane Sonko xam nga yu baree baree bari daal nañu wax ba léegi maa ngi ànd ak président Ousmane Sonko ba léegi je suis constant man ku ma xam ku may bëgg bëgg ma ci loolu ku may bañ bañ ma ci loolu kenn mënumaa jële ci Ousmane Sonko ne ma àndal ak ma dem ba wala àndal ak ma paate gawuma loolu man li ma gëm mooy li ma gëm. je suis fixe dans mes décisions loolu laa gëm mais nañu nañu bàyyi caaxaan yi man man xam nga man duma waxantu nee naa leen dellu leen sama vidéo cinq ans ci ginnaaw ngeen dem xool vous trouverez la même chose et pourtant bu ma dina am ñu bett lu bett sénégalais yu bari tey examen bi ma demee euh, Sénégal war a waroon euh, jaru ko Mais Bougan Dani, par exemple, on avait, on avait, et toujours, on, man ak Bougane ñoo gënoon am relation que <laughs> relation bi ma am sax ak Ousmane Sonko mais pourtant man Ousmane Sonko laa gëm moom laay àndal man Ousmane Sonko laa gëm xam naa leen ñoom ñëpp je les connais je les connais mënuma leen bañ a xam parce que euh, c'est le même millier c'est les mêmes personnes mais je suis fidèle à Ousmane Ousmane Sonko laa gëm parce que man nag man nag euh, man sénégalais yi ñi ma xam-xam nañu man du ma wuruj war a ja j'ai la même femme pour vingt et un ans ñaanal leen ma yàlla ma dund ba dee ak moom j'ai la même femme pour vingt et un ans elle est maison ñaar fukki at ak benn même jigéen bi changé wu ma dewuma fii wala euh, bàyyi beneen uti beneen wor ki woraat ki wuruj waraj non j'ai ma même femme pour vingt et un ans mësuñu séparé pour dix secondes new ma leen man maa gën ci àdduna bi wala moom moo gën ci àdduna bi non on est des êtres humains on on on fait tous des erreurs mais je suis toujours avec la même man dama fidèle je suis fidèle et constant li ma gëm loolu laa gëm lu ma gëmul gëmuma ko mais nag kanta ñu bëgg a taxaw fii tey nu aimons le Sénégal ñun dañu ne dañoo bëgg a changer Sénégal dañu ne dañoo bëgg a defar Sénégal waaye xam nga lu ñuy def dañuy ànd ak nit ba ci yàgg bu amee problème rek ñun ñëpp ñu daw ñu ànd ak moom yëkkatiwaat fi Mimi dooleel ko on fera des erreurs mortelles et c'est ce qui nous arrive parce que quand on se concentre à parler sur Mimi matin midi soir Mimi on va la on va renforcer dinañ ko may doole te billaahi buñ ko mayee doole on va payer avec nos vies loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg mimi billaahi buñ ko doolelee on va payer avec nos vies on va payer très cher nañu bàyyi mimi fële meen mimi du waxkatu dëgg ma ne nit day constant waay nit mënul nekk fenkat nekk fenkat suba rek ngeen ne wala ne léegi waxkatu dëgg la Mimi du xale Mimi magget bu xobi daas la elle cherche sa retraite politique dafa bëggoon ñu jox ko assemblée nationale bi mu am budget caisse noire assemblée nationale bi comme ni ko Moustapha euh, Kele amee woon je ne suis pas d'accord avec le choix du président Macky Sall c'est du népotisme ndax waa jii nekk tey ci assemblée nationale bi je ne suis pas d'accord avec mais je ne suis pas d'accord aussi avec Mimi Touré non pourquoi Mimi Touré Mimi Touré bandi la meen tappalekat la Mimi Touré la buñ ko nangu loolu mooy dëgg comprendre nga Mimi Touré la mais quant à vraiment ñu bëgg a toog fii di wuru ca kaw rek di jaxase carte gi non li fi jàll bari na mais comme ni ma leen ko waxee rek nañu bàyyi xel. Euh, am nañu ci réseau yi ay nit yoo xam ne vraiment jar nañoo bàyyi xel voilà man loolu lay wax du ma accuser kenn du ma accuser pour le moment duma dugg ci ay accusation dëgg lay indi dañu ne nañu waxante dëgg te yàlla tax man dama ne nañu wax dëgg yàlla tax dëgg la ñuy wax te yàlla tax xam nga ñun li ñuy xeexal nii Sénégal euh, lii dafa tudd don de soi pour la patrie maanaam nga def pour sa réew defuñu pour ëllëg Sonko yaakaar na amel nañu man Sonko ameluma dara il me doit rien du tout dama koy wax waxaat ko man maay sénégalais yooyu pour ah non Sonko ñëw na j'ai par reçu ma par du gâteau voilà Ousmane Sonko waxante wu woon ak moom lii maa ko doon xeexal non non non non wallahi billahi tallahi lazim macha allah am nañu lu ndaw lu ñu dundee am nañu te ñu ngi koy sante yàlla li ñu intéressé mooy Sénégal buumu njaam bi dagg suñu mbokk yi am liggéey sama jeune frère yi nekk ci jàmm loolu la ñuy ñaanal Sénégal loolu la ñu bëgg ñun li ñu intéressé wallahi eh, Eva Fall <laughs> Eva Fall mooy bind foofu wala kan mooy bind foofu mu ne pour soxna mu ne war war nga am ñaari soxna pour être un pur patriote a ah, ah patriote de boo leen ko bindee fi mu ne nii ma utiliser loolu comme alibi ma nit ma dem wuti ñaareel takk ko bu ñu waxee ma ne soxna si ah man sama président ñaari soxna la am voilà léegi yéen bindal leen ma alibi bi rek yen ñëpp def leen ay post boo leen amee fit ne leen une deuxième fois pour Ousmane Tounkara ah waaw <laughs> boo leen ko defee rek bu soobee yàlla man ma ma daal di toj kaas yi ne sama jabar ah en tout cas Sonko moo ko wax Sonko daal euh, patriote la te ñaari jabar la am donc ñun ñëpp dañu war a am ñaari jabar <laughs> macha allah <laughs> gars bu leen bu sama kër gi man sama kër gi laa <laughs> ilaaha illallah bu leen yëngal bu leen yëngal kër gi bu leen tax fii gars yi commencé jox supp kanja di ko kaani mu ëpp wala di ma wala xorom si di ëpp ci cini wala <laughs> ay ay <laughs> eh, akbar eh, <laughs> voilà donc gars eh, maa ngi leen di Mati Diagne Mati kii Madi Diagne mu ne non non non grand ñaareel non mais yéen yéen mais gars yi yéen nee leen ngeen bind affaire yi ah ngeen bind affaire yi fii waaye euh, ne ne ne voilà bi dafa war a am ñaar <laughs> yow nga nekk kii di bind <laughs> gars yi bu leen ma indil problème waaye na ma sama ne <laughs> na ma na ma ne pas des problèmes mais quant à dañu doon wax ci wax bu sérieux Euh, donc euh, yàlla nañu yàlla dimbali ci li nga xam ne moom la ñuy bëgg ci suñu réew mi yàlla defal ñu ko euh, te ñu moytu ñu moytu voilà boo leen gisee toujours rek ñuy concentré wu ci li nga xam ne moom mooy essentiel dañuy bañ a loo xel yi dina am nag ay nit yoo xam ne vraiment toujours il il des problèmes ah yooyu dañ koy moytu daal voilà donc euh, vraiment nañu nañu bàyyi xel daal xam nga patriote lañu dañu gëm suñu réew euh, nekk ay nit yoo xam ne tamit vraiment dañu bëgg a changer suñu réew donc euh, nañu am doxalin yu yu yu yu yu jaar yu méngoo ak loolu xam nga boo bëggee nit da boo leen xoolee ndeysaan xam naa nag ñu bari li ñuy ne wax bu wax bu mat borom xel yee ko moom xam naa ñu bari ci yéen di ngeen jaaxle boo leen gisee sama yenn comportement yi xam nga nee naa la boo bëggee nit man Ousmane Sonko changé na lu bari ci man sama sama sama sama rakk la nag waaye changé na lu bari ci man bu ma nee changé na lu bari ci man am na lu bari loo xam ne ndeysaan dama ko ci seet xam nga nit boo ko bëggee da nga koy seet ci lu bari tey am na doxalin yoo xam ne bu ñu ko bëggoon doxal sax bu ñu xoolee ci président Ousmane Sonko rek dañuy daal di delloo ginnaaw dañuy daal di dellu ginnaaw donc dee leen bàyyi loolu xel xam nga nit boo ko bëggee da koy bëgg lee li mu bëgg Ousmane Sonko Sénégal lañu la bëgg Ousmane Sonko dafa bëgg ñii mu àndal nañ leen ko bëggale bis bu Ousmane Sonko génnoon xalab Barthélemy Dias bu boobaa xëy na yéen ngeen am excuse est-ce que mas ngeen dégg Ousmane Sonko wax Barth lu ñaaw. dafa xaritoog moom ànd ak moom sincèrement ils marchent ensemble ils sont en complicité ils parlent ensemble ils vont da euh, dañuy seetante dañuy waxtaane lépp dama ne vraiment ñu bàyyi yenn yi daal xam nga yenn yi vraiment amalgame la ay waxi dof la donc nañ koy bàyyi xel daal xam nga vraiment nañuy bàyyi yenn yi xel daal parce que euh, ay gor lañu xam nga gor bu ne am na loo xam ne boo ko tegee ci deram rek da nga koy sonnal voilà am na gor loo xam ne boo ko tegee ci deram rek da koy sonal donc vraiment nañu combattre et combattons dignement nañuy dox ci dëgg xam nga ñun dañu ne dañoo bëgg a changer Sénégal bu dee dañu bëgg a changer Sénégal nañ ko teg ci dëgg rek te yàlla tax Si on veut changer le Sénégal, on n'a qu'à le changer en vérité. waaye ay fen mënta changer dëkk ay tappale mënta changer dëkk ay jaxase mélange mënta changer dëkk mais dafa am ay nit yoo xam ne tey vraiment wax lu dul dëgg nit ñi di leen seetaan di ko partager di ko tas jaral na leen lu ne gaar wàllewu ma nag <laughs> xam nga man aayuma ci loolu voilà wax lu dul dëgg wax safaan di ko partager maa waxoon maa defoon gis ngeen ma man je mana je gela je la amaana tey kenn du am plateforme bi mu waxee ndax ñun plateforme yi ñu yor dañ ko ubbil ñëpp encore une fois dañ ko ubbil ñëpp euh, euh, euh, li li américain di wax trois cent soixante cinq pages in counting maanaam boo leen xoolee tey réseau bi yëpp dañuy partager ci ay page one million marche Italie one million marche fii one million marche fii mais c'est pas du mana mana man nee naa leen ci benn spa laa ne woon nii rek li ñu bëgg a lekkee Ousmane Sonko nii ci benn spa laa toog rek fa laa xalaatee xalaatu one million marche sama soxna ci sama benn jour anniversaire moom a fayal spa pour ma passer fala la journée ci spa boobu laa toog. ci néegu spa bi rek di calculer mais ma man ban jumtuwaay lañu ñu mën a indi pour mu xeexal Sénégal te mu am doole ma ne voilà one million marche fa Sénégal parce que am na fii one million marche am na fii pour Amérique mais pour Sénégal amul ma ne donc bom loolu idée la biñ ko indee ñu ànd ci ak ay sénégalais ñun ñëpp ñuy xeex c'est pas du mana mana déedéet euh, gars yi. dama bëggoon balaa may dem dafa am benn uh, yoon yóbbante bu ma sama mbokku sooninke Malika ah Malika xaaral ma indil leen ko ñu yóbbante ma nee nañu ñoom dañ fa am benn centrale électrique centrale électrique bi dégg naa léegi dëkk bi dafa commencé am ay problème ay kër yu yoo xam ne ay ay kii dañ fay exploser ay compteur donc y a des problèmes y un frère qui a Euh, qui m'a envoyé cette vidéo hier nuit ñaanal leen ma nag ma gis ko dama bëgg a xam ndax ci sama téléphone bii la nekk euh, bu ma gisee vidéo bi rek léegi nii incha allahu rabbi dinaa leen ko indil may leen ma tuuti mi ngi chargé téléphone bi mais problème lañu am boo xam ne ñoom nee nañu dafa jeggi dayo parce que ndeysaan pollution baa ngi leen di rey léegi dégg naa centrale bi ay ay kii ñooy exploser seen biir kër yi ay compteur ñun nag dañu am loo xam ne dañ ko def ci bakkanu doomu aadama dañ ko valoriser donc bu ñu gisee doomu aadama buy wax et menacer les pages de one million celles qui acceptent le plus les partages avec Pape page de Clédor waaw voilà en tout cas ya a y' a trois cent soixante cinq pages yoo xam ne man ngeen cee jëfandiku bi may compter mais man nag dama yor ay gars yoo xam ne dama yor ay ay femmes yu brave yoo xam ne yan saa yi dañ may jaaxal dañuy jékki-jékki rek créer benn dix pages bo xam ne du xam fu mu jógee mais xam naa ne man naa mën naa confirmer ci trois cent soixante cinq jëm kaw loolu xam naa te sans compter les groupes imaginez groupes yi ak pages yi y en de y une mille xam nga mooy loolu mooy sonal ñu bari mais ñun utiliser wuñu loolu pour xeex parce que lii arme la da ngeen di moytu jël sa Facebook taal ko attaqué nit koo xam ne mënul fayu imaginel nga taal sa Facebook bii nga xool benn doomu aadama boo xam ne mënul fayu nga attaqué ko mais mën nga koo rey parce que lii arme la lii moo gën a grave fetal Facebook moo gën a grave fetal donc nañuy bàyyi loolu xel nañu bàyyi loolu xel Facebook moo gën a grave fetal billaay wallaay tallaay c'est très dangereux Facebook moo gën a grave arme fatale donc nañuy bàyyi loolu xel donc bu ñu jëlee Facebook bii nii tey ñu koy xeexee euh, vraiment mën nañoo yàq lu bari mais vidéo bi dama leen koy tegal parce que daf ma ñor maaren cooninga ko ngaaxa sukkuñi ni ngaaxa xantana ngaaxa maamana ndaxa message yi mugu uh, owa mulla insha allahu rabbi ona ke vidéo ñangaxaɗa ngani gars yi duñu dem nag te waxuñu ci majàmbal dëmm bi bu ma paree teg vidéo bi pour ñëpp dégg ko après dinaa jël jour nag pour moom mais Madiambal Diagne il faut ma wax ak moom parce que dafa ñàkk jom salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum diaspora bi tey euh, ñu ngi Malicounda ci centrale électrique Malicounda la du Malika baal leen ma Malicounda boo leen xoolee vous par dégâts yi muy def ndax gis nañu fumée bi gis nañu lépp centrale fiir la donc voilà mais loolu taxul ñu jóg li tax ñu jóg mooy alerter Sénégal bi yëpp def leen témoin centrale bi commencé na def ay dégâts parce que village yi mu alimenté dañu commencé di toog seen kër yi di am ay explosion ci seen branchement yi seen kër disjoncteurs et compteurs yi mu ngi yàq appareils yi les frigos télévisions yi lépp lay yàq maintenant loolu c'est pas le souci le souci mooy il faut que ñu jóg parce que euh, jàpp nañ ne nous sommes en danger ici à Malicounda parce que on entend souvent des explosions xamuñu jusqu'où courant bi dégâts bi muy def ci fii maintenant il y a des démarches qui ont été faites dem nañu gis le commandant de brigade pour wax ne voilà nous voulons manifester mais su fekkoon suñu sago la ils vont arranger le problème déjà ñi fa dem Ils nous ont remonté l'information comme quoi il a informé euh, direction bi mais cette même direction là <coughs> gisuñu gisuñu mu def dara est que la la chose continue maintenant nag on prend tout le Sénégal en témoin il n'y a pas de manifestation prévue il a rien mais ce qu'on veut c'est que ñu respecter nit ñi respecter viu nit ñi def seen liggéey comme il faut parce que si jamais si jamais euh, centrale bi mu def dégâts surtout ci nit ñi nous serons dans l'obligation de jóg fajal suñu bopp et que ñaanuñu yàlla ñu egg foofu maintenant li xew mooy Sénégal dañu am culture xaar ba dara xew ñu tëb am ñu ñuy joxoñ ñun xaaruñu lool dañu leen ne nañu jóg ñëw def seen liggéey parce que courant bi ni mu mel ni ñoom seen bopp maîtriser wuñu ko mu ngi def ay explosion di tàkk ci kër yi di tàkk fépp waxatuñu nag centrale fuel bi dégâts dégâts yi muy def loolu waxuñu ko mais dañ ne nañ ñëw sécuriser seen branchement yi ces machins c'est vous-même qui prenez de l'argent sur la population parce que le courant qu'on consomme la on paye nu nous sommes des Parce que si vous ne gagnez pas dans vos investissements, vous n'allez pas venir au Sénégal. Donc vous êtes venu pour gagner de l'argent. Quelle que soit la situation politique de notre pays, vous devez respecter la population. Il est temps que vous respectez la population parce que sinon, c'est la population-là que vous croyez pousser contre le régime qui vous facilite vos investissements au Sénégal. C'est cette même population-là qui se retournera contre vous. Maintenant, on en garde. on vous met en garde. S'il y a des pertes de vie humaine ici, vous allez nous voir résoudre le problème nous-mêmes. Trop, c'est trop. On vous invite à la raison. Nous sommes en danger ici à Malikunda. Point barre. On informe tout le monde sur la situation de Malikunda à cause de cette centrale électrique-là. Voilà, donc ñun ñoo déggandoo loolu vraiment suñu benn frère moo ma euh, alerté lii démb ne ma vraiment dañu nekk ci njaqare nekk ci ay jafe-jafe te ñu soxla nga jàppale ñu donc euh, je pense que étant être humain étant aussi citoyen sénégalais dañu bëgg ñu bàyyi xel sénégalais yi te respecté leen un consommateur a le droit au respect nit kuy consommer ci yow maanaam il te riche kooku du sa du sa surga moo lay fay donc da nga ko war a respecter maarem mu xanaatu nanti keɓe gadaxa tampindi aɗo su tampindi cette affaire de Malicounda incha allahu rabbi dañu bëgg mu résoudre au plus rapidement possible boo leen amul ay résultats au plus rapidement possible vous me revenez je vous promets que dinaa fexe kàddu yi yegg fi mu war a yegg yëpp incha allahu rabbi ba ñu taxaw suñu mbokk malikundaa yooyu voilà donc euh, loolu lañu leen doon santé ci côté boobu ngeen jéggal ñu waaye incha allah dinañ ci gën a waxtaan ak yéen pour sénégalais xam li xew maintenant la cas Madiambal Diagne euh, Madiambal c'est vraiment un mercenaire de la plume euh, et du micro parfois Mar Madiambal Euh, bu ñu ne woon ci ay nit euh, moom du nit Madiambal il protège son derrière Madiambal il a fait il fait beaucoup de dégâts au Sénégal maanaam dafa bokk ci sàccum suuf bi bokk ci tappale bi nekk ci réew mi bokk ci jaxase mélange beeg wuruj beeg waraj bi donc moom il est dans son xawma dans sa petite case pour moom dafa war a yëngal Sénégal pour ñoom ñu mën a continuer maîtriser réew mi parce que bu leen bañ bu leen bu leen bu leen daanu ci piège yi parce que Macky Sall euh, et ses amis là du ñu bañuñu euh, problème ethnique am Sénégal bañuñu ko ah parce que ce que Madiambal est en train de faire pour attaquer des ethnies surtout maanaam yéene